li nga xam moo di ndog nga woote tey nga daal di gisaat nga woote ñu gisaat beneen entourage balaa dara di xew dañ lay bàyyi nga daal di nuyoo ba pare. waaw asalaamaaleykum donc maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen nuyu yéen wax dëgg yàlla ndax ay nit yu baax ngeen donc ñëw ngeen te lépp lu fi fësal yéen a ko fësal donc man tamit maa ngi jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga joxal ma ko gars yi nga àndal yëpp. ok bébé Eva ñu na ak édition bi ñu gisaat yeneen visage maanaam collaboration ak Kaay Ndogu lan moo waral waaw Kaay Ndogu nag mooy li ma leen waxoon keroog parce que dafa rafet dañoo ànd euh, ci kooru ren bi donc di ànd di distribuer ay ndogu mu rafet ma ne pourquoi li bébé Eva di organiser waat beneen équipe wala di wutaat beneen équipe pour pour ñu organiser ko comme kaay ndogu boobu ba tey ñu ngi ko ànd mu rafet donc def nañ ko le 17 mu rafet ñu def ko le 30 mu rafet pourquoi pas le premier ñoom ñu ñëw gunge ci bébé Eva ñu doon nag ay nit yu baax yoo xam ne wax dëgg yàlla fu mbir mi egg rek ñoom la parce que ci suba ba tey la ñu bàyyi seen lépp ñëw fi ku fi mel ni bébé Bass lu ne nag wàccee nañ ko fi waaw lu ne wàccee nañ yi du ndogu bébé Eva kese mais comme niñ ko defee woon le 17 noonu lañ ko defee le 30 noonu ko defee tamit le sama xarit bii rek tey lu nekk wàcce na ko fi jox ma xaalis bu bari donc ñoom ñëpp ñu ngi wane que ni ñun ñëpp ñoo far te ñun ñëpp ay sœur lañ donc maa ngi leen di sant kaw ba ci suuf ku lim da ngay juum képp ku sol ci setukaay ndogu rek nga ñëw ak nga ñàkk ñëw bu Weva mi lay sant di la euh, bi passé gis organisation bi ñoom ndaayaan ñoom Nour nga defaat changement bi est-ce que tamit dekk diggante moo xaw a neexul ba tey gisuñu leen ñu gis nga xam ne mais ñoom ndaayaan ñu ngi fi ndaayaan mi ngi fi Modou Mbacke mi ngi fi waaw daaw boo gisee loolu noonu kaay ndogu daaw amul woon kaay ndogu amul woon donc ma defaroon ay t-shirt ñu ñëw ma ni comme ñoom ndaayaan ñëw nañ te tey am na koo xam ne yàgg na bëgg ndaayaan te mën mënu ko gis donc mu taseeg ndaayaan ci tali bi ndaayaan jox ko benn mburu donc dina ndogu en plus dina doon ndogu plus parce que ki mu gën a bëgg ci àddinaam la dajeel nga dajeek ñànku ñànku jox la mburu nga lekk ki nga gën a bëgg sa àddina moo la jox mburu donc looloo tax daaw mu demee noonu dama defaroon ay t-shirt ren comme am naa waa kaay ndogu te lakostu yi mi ngi fi xale yi disponible nañ donc loolu moo tax gisaatoo leen dalaa jur ba pare amul ci yow xel ñaar donc yow tamit da ngay am lu bari loo xam ne da ko koy suuraale moo tax man fu ma mënta nekk ci sama àddina damay xel sama yaay waaw damay bàyyi sama yaay parce que du nday bu ma sonal du nday bu ma sonal parce que fii àddina la gis nañ ñu nekk gis nañ nday teg doom loo xam ne mënu ko ba boo génnee di def loo xam ne neexul suñu borom mais ku ma jàmmal moo xam ne sama yaay ku ma jàmmal la sama xarit la donc sama complice la sama lépp la moom bañ na ko ba amul jëkkër man maay jëkkëram loolu laa koy tooñee chaque jour. mais ñi wax ci commentaire yi naan demal nga jege sa yaay. dañoo juum man mosuma sori sama yaay te àdduna du neex ba ma sori sama yaay te wax naa ko euh, y a sos yoo xam ne du du ci réseau laa koy waxee parce que sama vie privée la parce que tey dama koy waxaat dama koy waxaat parce que man dama juddu xam ne dama war a baax ma baax man dama juddu xam ne dama war a baax ma baax. mais man aw ma sensu pour nekk ak yaay sama yaay jamono bii laa am sensu nekk ak moom sax ba xaw a dund yenn affaire yi parce que sëy yàlla moo koy tudd yàlla moo koy moo koy jeexal sama yaay ak sama papa nekkoon nañ donc tàqalikoo nañ sama yaay mi ngi doon nekk keneen sama papa mi ngi doon nekk ak keneen man su ma doon bon ci jamono boobu laay bon donc non non non sama vie privée la ak li ngay wax ni bokkul loolu du vie privée mbir am na fu muy tollu nekkatu fii privée foofu duma ma fa te duma ma fa xuus maa ngi woon ci sama mbiru yaay dama ne man Bébé Eva su doon bon wala ma yées loolu yàgg na parce que tolloon naa moment boo xam ne gisuma yaay ju naan ma déet gisuma papa ju naan ma déet te keroog laa gënoon a baax rawatina jamono jii àddina mën a doxaat ba ma mën a jot ci sama yaay nekk ak moom mu naan ma defal lii defal laa kon man am na loo xam ne jombale naa ko sama bopp te barke alxuraan fu ma mënti nekk ci sama àdduna dama jàpp ne sama yaay ci sama yaram donc ñu naan demal nga jege sa yaay xamuñu li may dund xamuñu sama kër mbokk laa nekk xamuñu sama kër papa laa nekk comprendre ñu donc man dama leen di xamal que ni musuma sori sama yaay même maag moom bu ñu bokkul benn lal bu ñu fanaani chaque jour dañuy gisante. jàppale nan nga gisee waaw mu doon loo xam ne nag wax dëgg yàlla mooy li ma la wax day tax ma defaraat sama toogaay parce que man dama jàppee woon sama àddina man noonu laa mel dama par personnel nit bu simple laa jàppee sama bopp nit bu oyof laa jàppee sama bopp ba tax na lii nii peut-être bu amul woon suba mën naa juum ci loo xam ne sénégalais yi dañ ma ciy xeet mais man li am nii dafa may jàngal que ne man dama war a defaraat sama toogaay te gis naa leen ñoom ñëpp gis gis naa leneen ak leneen mais nag su ma kontaanee ba pare teewul man bébé Eva damaa war a defaraat sama toogaay xam ne carrément juum waruma donte nag ñun ñëpp suñu borom ci suñu borom lañ jóge te yàlla rek moo dul juum mais man xam naa ne damaa war a defaraat sama toogaay te bi loolu amee laa judduwaat man bébé Eva waaw parce que damay bañ a juum damay bañ a juum parce que dama gis ni ma sénégalais yi yëpp def appel yi 400 nangam appel laa barke alxuraani karim ci yu ma jëlul nekkul Eva dafa est-ce que euh, naa ne a yeewu parce que man coow li lu yéex a yeewu. non du yéex yeewu. Euh, benn instant sortie bi baax na. mais benn instant lu ma rëccu la ci sama àddina xam nga lu tax ma rëccu ko man kenn xamuma ci domaine boobu man kenn xamuma ci domaine boobu et pourtant man. Euh, man li may def mu baax moo ëpp li may dinaa juum nag parce que nit laa mais li may def mu baax moo ëpp li may def mu bon et pourtant chaque jour man lu baax li may def du feeñ de man maa ngi dem ci prisonniers yi du ngistal du dara nag maa ngi dem ci prisonniers yi maa ngi dimbali néew di doole yi maa ngi def ndogu comme nii di ko jox jaamu yàlla yi mais duma ma doxaat ba am retour ci loolu mais yàqamti nañ nga juum ci benn affaire chaque jour dañ koy dëkkal ci say morom pourtant sortie bi am na ñu ci d'accord am na ñu ci d'accord mais man dama part personnel dama cee d'accord parce que dafa am loo xam ne day am yamuwaay te foofu la yamoon donc génn naa wax naa ci pare naa ci duma ci ñëwaat parce que man lu xasa jàll ci sama ginnaaw duma ci ñëwaat euh, beneen bi ci topp mooy que damay jéggalu sénégalais yépp di leen baalu ndax nit jooyal na la te xamu la nit jooyal na la te juru la donc damay jéggaluwaat sénégalais yépp bu baax a baax a baax a baax di leen ñaan ñu jéggal ma ci barke weeru koor bi pourtant wax naa la ko léegi-léegi nee naa la damaa judduwaat waaw nee naa la damaa judduwaat ba pare nee naa la dama damaa toll pour ci pour defaraat sama toogaay ci loolu laa nekk loolu amul man ku ma xam-xam ne nit bu am cër laa ku ma xam-xam ne nit bu joxe cër la que même bu fekkee ni sax bëgg nañ ma def loolu loo xam ne bëgguma ko def mën naa ko wax ba mu rafet te du ci ñaaw mais du ma nit buy dàq nit wala may nekk nit buy toroxal nit man yaruñu ma ci loolu waaw. sa relation ak Mame Ndiaye Savon gis nañ ko ci li bi maam maam daa voyagé. maam daa voyagé ndax gis ngeen léegi léegi bi ma yoree sëriñ Fallou mu ndaw man bu am ñëwul sax bu Serigne Fallou ñëwee neex na ndax man Alaaji Fallou rek laa yaakaar Fallou aw ba ma ma tey su ma amee fitu def lii moom la sëñ Fallou rek ma ci gunge donc bu maam Ndiaye ñëwul yaayu maam Ndiaye ñëw day mel ni yaay euh, maam Ndiaye ñëw na maam ñëwul waaye ñëw le na ñëw le na ñaari yoon ñëw le na ci doole poche ñëw le na ci way juróom bu jigéen te looloo ëpp solo lépp ndax yaakaar naa ne bu ko bébé Eva tollul woon fenn yaayam du déplacé wu ñëw doomam jim gën a bëgg tuddee ko Serigne Fallou Mbacké ñu ànd ak moom indi ko ndax xam nañ ne buñ ma indilee Alaaji Fallou man sama xol sedd na maam daa voyagé mu ngi Dubaay waaye réeróowuñu ci dara ba nga ci wax loolu duma ci wax loolu duma ci wax dama woote ay ndogu dama woote ay ndogu ndogu yi jàll ma woo Ndiogu Afia pour mu ñëw santale ma sëriñ Fall li nekk ci sama nekk ci sama ginnaaw ne li nekk ci sama kanam rek laay focus gis waaw Mouhamed Alla sama frère la maa ngi koy nuyu di ko ziaraale euh, moom tey dafa am ay jàng ci waawan de un de ren woon pour def ay jàng ndax ku ne xam na ne ci ay tournage lañ nekk te gàlle no stress ci biir koor lañ koy tourné abaa mi fi juge léegi du ma mën na ma mat na ma seede ndax moom mii di wax ak yéen nii mu fi jógee nii tournage la jëm man jàng yi lu mu guddee guddee guddee bu ma paree sama valise ngi fii damay continuer dem tournage parce que dañuy liggéey donc ren dama ne woon defuma benn jàng mais ñu ko affaire Serigne Falloo ma booleeg moom ndax moom taalibe Sëñ Fall la bi ma gënee nekk xale ma daan dal ci moom màggalu Touba mu woo ma téléphone biñ ne jàng yi des na presque une semaine ndogu yi bébé Eva bu ñu ndogoo ba pare lan nga programmé ma ne ko programme wu ma dara mu ne ma may naa la ay cant ci doolay Serigne Fallou Mbacke dama koy jël mais doonul woon lu ma programme mais njoogu ak ak ak Mouhamed Alla Diop ñëpp benn lañ bu Ndiogu jàngee mel na ne Mouhamed jàng na bu Mouhamed jàngee mel na ne Ndiogu jàng na te man xam naa ne su ma doon defaat ay jàng décidé pour def ay jàng Mouhamed Alla Diop moo Mouhamed mosuñu jote mosuñu jote waaw sama càmmiñ la fi nga dugg nii baax na Mario mbay sama càmmiñ la sama xarit la ñuy nekk man moom Ndeye Yérim mbay Ndiaye AIC bi ñun ñëpp di toog donc mu nekk nit bu baax barke Allah ji Fallou Mbacke fallu aw bu rek laa yaakaar sama téléphone bu ma jege woon dama leen koy woon xaalis bu bari la ma jox Mario xaalis bu bari la ma jox barke Allah ji Fallou Mbacke te nit la boo xam ne nit bu baax la man sikk yi ñuy wax ci Mario mbay man bébé Eva xaw ma ko ndax man nu waay àndeek man mën naa ko àndeek yow waaye nag mbaax rek la ma wan taalibi Serigne Saliou Mbacke boobu xaalis bu bari la ma jox kon Mario bu tàntee ngeen gis ci bébé Eva war na ah question bi waaw man la musuñu xuloo Mouhamed Alla musu musuñu xuloo te duñu xuloo ci àddina kooku sama càmmee la ñu gis nii bi. dañoo gis. Bébé Bass xarit ne nañu jalousie Bébé Bass. Bébé Bass Bébé sama xarit mais sama équipe la bokk te sama nit la ndax tey nit nit dina la mënal loo xam ne sa xarit mënalu la ko. moo ñii dama leen a jàpp parce que man waa Zara dama leen a jàpp xam nga lan moo tax man sama bés bii rek laa am man sama bés bii rek laa am man ñaari bés laa am sama àddina. muy sama jour anniversaire ak bés bi may jël ay ndimbal di ko jox jaamu yàlla yi bés bii may togg ay lekk di ko jox jaamu yàlla ñaari bis yi rek laa am te bu ci nekk mosuma ko feete lii ndogu laay def su ma xëyee ci suba ga dem ca prisonnier yóbbul leen li ma am sama sama anniversaire man bébé ba mosuma ko feete chaque sama anniversaire wàccee kaamin laay def chaque sama du ngistal du dara mais donc yoon bii ñu nekk mooy dëgg yoon bii nii ñu nekk mooy dëgg ak noo ko mënti defee parce que lu nekk ngay dégg nii nga ko defee nii nga ko amee mais tey amee nga ko nu nekk teewul sa xel dem ci ka nga jël ay lekk joxe ko lii kaay ma wax leen ku nay mënu ko borom xool bu ndaw mënu ko te barke Allah ji Fallou Mbacke samay nitu personnel ñoo ma ci fekk du maire du président du kenn ku ma jàppale tey mooy sama deuxième édition te chaque jour tànk kanam rek laa ciy gis waaw ne ñu waaw euh, am na ci ñoo xam ne nag am na ci ñoo xam ne yëg nañ mais am na ci ñoo xam ne yëguñu parce que man bébé ba mooy li ma leen wax guddi yëpp ci ay tournage laa nekk yàlla xam na ne am na ci ñoo xam ne bu doon appel la ñuy xaar pour ñëw tey doo leen fi gis mais ñu ci bari affiche laa leen yëgaleel ñu ci bari dañoo gis ne dañoo war a ñëw ñu ñëw yaa awa woo na ma dafa am empêchement xale yee ay doomam lañ ñoom la yebal ndax Fatima mais doomam la donc li nga dugg ci ay affaire appel sax moo tax ma ma wax ak yow wax dëgg yàlla moom tamit mu def li mu mëne te li ko empêché man xam naa ne loolu moo donc loolu la rek ku ngeen fi gis yëgal nañ ko xëy na temps bi moo xat rek waaw wax naa ko sànq moom sama xarit la eh sama yaay sama xarit la man sama yaay sama xarit la man parce que ci ci këru famille laa nekk mais nag kenn jéppiwu ma ci man duma ne sama këru famille dafa métti parce que li dal xale yi dalu ma man sama rakku yaay ñoo ma gën a bëgg sama yaay barke alxuraanil karim samay rakku yaay ñoo ma gën a bëgg tamit sama yaay mais man sama yaay sama xarit la ndax bi ma juddoo ba ni ma màggee ba ni ma toll moom rek laa xam Euh, absence su kenn mun na ma bañ a manqué waaye présence su kenn it mën na maa bañ a saf sama yaay rek moom sama xarit la ndax jigéen bu mën góor la. lu ma dund ak sama yaay bari na de waaw bari na de bari na de bari na de moo tax ma la jàmbaar la eh, sama yaay jàmbaar la. ndax tolloon na tolloon na moment yoo xam ne métti woon na torop ñun ravitaillement bi mu njëkk a jëndal sama yaay ndoxu taw a yàq ceeb taw taw ba kër gi taa suñu bagage yëpp yàqu kon tey moom lu mu am rek mérité na sama yaay jàmbaar la sama sama sama xarit la man bi may liggéey di jox sama yaay ma ci aar min daan sax liggéey naa ko barki Seydouna Muhammad sama sama doomu sama doomu nday nga xam ne yaay laa bokk ak ñoom seen papa génn àddina sama yaay war a luwee tollu ma neen barke alxuraani karim boobu bu ma amee 17 ans wala ma am 15 ans ci lay toll. ma ne ko luweel chaque weer ma di ko fay di liggéey min daan man ak sama rakk bi gaañu Fatima moo topp ci man muy fayee ko 25000 may fayee ko 25000 sama 25000 la ñuy fayee location 25000 Fatima la ñuy jëndee kon tey sama yaay lu mu lekk war na doomam ku ko joxoñ war na man man su ma amee damaa war a am barke Alaaji Fall waaw ndax dund si sama nag. maman maman baax na. waaw li des ci ñu dégg ma ci dara même bu ma amee naqaru àddina dinaa ko muñ. même bu ma amee lu ma naqari ci sama àddina dinaa ko muñ parce que ma damaa man damaa war a muñ ndax nday muñkat laa am sama yaay muñ na lépp donc man damaa war a muñ mooy li ma leen wax sànq dama ne leen def naa sorti ba pare rëcc ko parce que man dama war a muñ waaye muñ naa nag akama muñ du ci cadre boobu noonu sax ñuy wax waaye man dund naa lu nekk ci sama àddina lu ne loo xalaat ci lu métti rek man dund naa ko ci ñaar yi laa jaaru prison ak def lu neexul suñu borom mais leneen loo xalaat ci lu naqari rek man dund donc sant yàlla moment bii nii ci moment sant yàlla laa toll ah. merci sama dernier mot waaw di sant ñëpp di parce que man nag ñàkk yitte moom duma ko dégg man ku xew la sama sagara nga fa waaye nag lu ma yëg ci loolu laa mën a dem. waaw loolu du sama loolu du loolu loolu man du sama liggéey wallaahi angim bu ma sañoon képp ku ma soxla ci àddina damay disponible mais bébé Eva tamit dafa am ku nekk ci ginnaawam naan ko defal lii waxal lii donc message bi nga jàllale moom dina ko seetaan te bu ko seetaanee peut-être dina ci bàyyi xel bu beneen yoonee bu ngeen ko bëggee mu yomb ci yéen maa ngi leen di nuyu jërë ngeen jëf di leen sant yéen di leen gërëm di sant sama équipe bu ñaawul bii nga xam ne tey lu fi baax ñoom la di sant sama rakku yaay di sant samay rakku yaay bu baax a baax a baax a baax parce que ñoom ñoom man lañ jur waaye man it ñoom ñoo ma jur waaw di leen sant yéen parce que lépp lu fi lépp lu fi kii rek yéen a ko di sant tamit njóogu afiya ndax fii fayu ma ko fi ki dërëm mu war a ñëw ànd ak équipe am bàyyi yitteem yëpp ñëwal ma te ku ne xam na ni koor dafa xat donc moom Serigne Fallou rek laay jël teg ko ci loxo Serigne Fallou Serigne Fallou fayal ma ko boppam di sant ñoom bébé baas ak luloo jumeau afiya ñëpp ba dafay mbay njaay nday Yirim maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf merci. Oh.